de presse ak El Hadji Ahmed Aïdara bismillah des am na ca pale ba i des laa wax de tas ca pale ba tribune yéene kaay ne Aminata Tall day dañu koo liggéey wuy sama ndey laa ilaha illallah ah maa la wax lii ma ne am na loo xam ni kon ma ngay am ca kaw a kaw ku leen ko nettali kon doo leen ko gëm marte tali laa ilaha illallah dara nag taxu ko lu dul bëgg jëlee kon secrétaire général présidence de la république ca pale bee taal maa la wax li ne lii daal tax na ba ñu sulli maanaam ay téereek yu ne ca biir bureau ba laa ilaha illallah ma ne bureau Aminata Taal ba la ñu fekk laa la wax ay téere ak yeneen yoo xam ne jéggi na dayoo lii lépp ngir kon daal di koy déjjati néewal ko doole moom daam d'affaire bi nga xam ne am na ca ñoo xam ne dañoo jàpp ne Aminata Taal kon da leen di déranger kon ca pale ba te bu ñu sukkandikoo ci ay xabaar Aminata Taal a nga ne feebar na ba fi mu nekk nii kon tëdd na ca kaw lalam laa ilaha illallah waaye ay jege ñaale Aminata Taal kat nekkuñ fa sax di hésiter déedéet ñoom daal kon ñoom ñoo def lu ni mel ñoo bëgg a jëlee Aminata Tall kon ca palais bee ci gouvernement bi nga xam ne kon ñi ngi xam le ne ñi ngi koy waaj a defar tribune yéene kay ne moo ni Aminata Tall bi laata premier tour ya la àndoon kon ak Macky Sall ba nii ñuy àddoo cay waa APR APR googe parti la boo xam ne kon toggooguñ ko structure guñ ko déedéet libération yéene kay ne moo taxit xuloo yaa ngi mel ni tulleeg màlle seen biir xoolal ma ca Grand Yoff ge député Abdoulaye Ndiaye ah ma ngay defanteeg ministre Aminata ba maar day taale député Abdou Mbow ne waaye gis bi Basbi. waaw ña nga xam ni maanaam ñoo nekk ca base ba ñooñu xam nañu te nangu nañu ñan ñooy seen responsable ci biir dëkk bi yëpp est-ce que dëkk baa ngi dox direct info ne neexal ga jeex na ngir yaanaa maar fuu malaat ne gis nga boo sàggane ah yaakaar gu tas gu yaatoo yaatu kon lañ te nar a gis nañ leen ko wax politiciens yi seen bopp kon dañoo lajj waaye yaanaa maar ji ne Macky Sall nag mi ngi def sénégalais yenn yoo xam ne kon daa defuwul waaw neexal gaag yooyee jeex na def daal ab giraawaali yëkkati ab daal lal ko sab ndodd loolu kon amul sax ay xaar ak dem ma ñëw rapport bi demee xoolal ma jàppale lan mooy ndayuk yow Macky Sall jël kenn koo xam ne départ volontaire la defoon ëppal na juróom benn fukki mu daal di koy indiwaat fuumalaat ci yéene kaay ne ñun daal denc ñu suñu ngànnaay yi ñu xeexee di armi te tamit arrêté wuñ kon suñu xeex ba d'accorduma benn yoon ay ndaw ñu dugal leen kon ci kaso bi ba pare bàyyi fi ay criminel politique ñuy lambar lambari ak di lijjanti kon seeni yëf Sud Quotidien ne ndaw m yi day ah mer nañu de te a audité cay audit ya libération yéeni gi ci wàllum suuf ah ca bitim réew ak yorin nga ca annoncé yi bii waa inspection générale d'état ñoom daal fi mu nekk ni juróomi milliards la ñu teg ba dee te nag ñu ngi lëmba compte wu présidence de la république compte wu ndongo jaw bloqué nañu ko laas ne ñaari directeur général yu nekkoon ca kaso ba ah seeni mbir saay bu ñu xëyee muy gën a tar bay laa wan ak ndongo jaw doyen des juges lank na ndaare kon tëdd ca suuf ne du may bàyyub nagandiku ki fi nekkoon directeur général bu lonaas maa mu Diouf bloqué compte wu kii ndongo jaw njaw ndongo l'officier ne appel entrant yi ñu fi doon wax waaw ne dini nañu ko nguur gi daal ab wax waxet kon la ca nar a defati de marti itaali loolu neex naa dégg li neexul dégg kay mooy inondation yi le populaire ne ndakaaru njaay jël jóob gi ci ab bomb la toog de ab bomb la toog de ci kaw ndox woo xam ne day bu fi kalaatee marti itaali Amath Sall nekkoon fi ministre ne gis nga lii ñu gis bu continuer ah dootu ñu soxlaati sax taw yi mi ñi ngi rey tribune yéene ministre yëpp ah. Théodore Bangari dëkk ca ginnaaw raay nee na inondation yaa ngi nii ba léegi ni le ndox maa ngi nii suñu biir néeg yi kon di jaaba jonge mbedd yaa ngi nii inondé ti jite l'école bi ak tabaski bi ay mintit yu baree bari kon la ñu dajale man gaw ma ni sax sama doom yi kon danañu jàngi l'école parce que bindaguma leen tabaski baa ngi nii xanaa balaa nga naan naam ne fa balaa ngay wax ay mbirum xar am buum ba nuppi inondation yaa ngi nii tax na kon a ndóol samba ba ne at bu la at nga xam ne jàngalekat yi ñu ngi koy laaj ak ñaxtu yëpp dëgg la ci yoon dong la ko teg ay saafara ci wàllu njàng mi ree ñoom ñaar ñii muy nguur gi ak jàngalekat ñoom ñaar ah daje nañu kon niki démb Macky Sall ak Serigne Sidi Makhtar daje nañ barki démb Le Quotidien yéene kaay ne Macky Sall am sens ah dañ koo naroon na toroxal kon ca kër sëñ Baba maara tey taali humilier ko te ay jege ñaale Serigne bee naroon def lu ni mel maara tey taali waaw waaw parce que ñooñee jàpp nañu jàmbal jaa ngi ne Macky Sall ak délégation ba tardé nañu fanweeru minute yàlla xalif général murid ay wàjjile ñi ba di sàkku ci xalif bi mu fatu mu dugg ci xaar kon président président bu Gambie day rey na juróom-ñeenti doomu aadama ñaar ci ay sénégalais tribune yéene kaay ne moo taxit ka ko fa bëgg a déjati di Cheikh Sidiya Bayo ah formé na gouvernement nga de fukki ministre ak ñeent la am na ci ay ay yoo xam ne ñoo fas yéene topp Yaya Jammeh de jàpp ko atte ko samedi bii la ñuy atte kon suñu diggante ak Côte d'Ivoire le populaire ne am na ci ay ivoiriens yoo xam ni ñu ngi commencé wut ay sëriñu sénégalais de Gaston Mbengue ne tey nag la sëriñ si war a gën a taxaw jàppale sénégalais yi jay Sénégal libération yéene kay ne ginnaaw coowal Cheikh Yérim Seck ak Ndeye Aïssata Tall ah beneen coowa ngi ni la de scandale la de te boo sàgganee nag dana fi jur kon ab giraawaale goo xam ne maar tey taali coowal yolom geñoo la de yolom geñoo la de maa la wax li waa ji homme de presse la ilaha illallah ëttu tasu xabaar ca lay yëngu journaliste la <laughs> cay lii waa ji daal làmmiñ wi saf na génn xeetu saf goo xam ni ah te bu ñu sukkandikoo ci xabaar bu jóge kon ca police ba nee na waa ji kat kam doon jàppoonteel faram la i la ilaha waa ji kam doon jàppanteel faram la waa ji góor la farwa góor la maa la wax lii mujjee xeex bu méttee métti dox na seen diggante ba ñoom ñaar ñoo ñee am ci ay gaañ yu méttee métti bañ yóbbu leen kon hôpital laa ilaha illallah te homme de presse boobee journaliste ba jot nañ koo téyee sax kon ci benn commissariat fii ci diggu Ndakaaru <laughs> cay waay nopp dallooti na ndar ràññ cay alaaji jommeeti nga lii cay alaaji kii kana en tout cas daal ku saf làmmiñ la cay alaaji kii kana téyewoon nañ ko fii ci commissariat cay alaaji kii kana góor lay bëgganteel de cay kii kana <laughs> <laughs> ma ne wax ko te jóg may ma ma tës tarantac cey lii